muy fédération maam Cheikh Anta te ki nekk ci bopp bi di sëñ Mbacké Tambédou ñoo ngi jël nuyoo bi ak ziyaare ak ñaane di ki teg ci loxoom di leen sant nag di leen gërëm ci yitte ju kawe ji nga xam ne def nañ ko ci bis bi te tey jii ku fi ñëw saxool sedd na di wax ne bis bi bisu mur yëpp la suñ borom da ko jaarale rek ci maam Cheikh Anta waaye mooy ñibbisi sëriñ bi te bu fekkoon ne lii amu woon day mën naa wax ne yoonu murit kon du am kon ñun ñëpp war nañoo sant fédération bi nga xam ne mooy fédération Maam Cheikh xam naa waxtu wi dafa ñoo dab moo tax daanaka foofu la ñu nuyoo bi rek ak ñaan mbokk yi tey waxtu wi nga bi ñu bëggoon a jël mooy waxtu ni ma amee solo ci doomu adama ak dund maanaam waxtu ak nit ñi ni ñu ñàkkee xamee waxtu te jëmm ji nga xam ne moo ñu fi dajale muy maam Cheikh Anta xamoon lan mooy waxtu ba bu ñu xoolee lim fi réalisé ak lim fi jëmmal dangay jàpp ne nit warut a mën a def lu toll noonu waaye dafa xamoon xëy may waxtu ba tax na mu def si lim ci def te dafa mel ne ci jamono ji mbokk yi bari xamuñu lan mooy waxtu danañ ci ñëw ci kanam te boroom xam-xam yi dañuy wax ne al waxtu huwa al xayaat waxtu moo di ak dundu te ñu bari euh, bis dana ñëw ba dem te boo leen laaju lu ñu def duñ ko wax duñ def dara liggéey naa ñëw naa wàcc loolu lañ ci def amuñu leen luñ ci réaliser am na ñoo xam ne jamono yi zaman yi mënuñ see wax lenn luñ ci def mu doon lu lu yéeme loo xam ne jot nañu jàngat ko ci maam Cheikh nan la ko doon dundee ak lim ci lim ci réaliser danañ si ñëw xam ngeen doomu aadama bi ko yàlla bindee ñetti mbir rek moo tax mu bind ko andi ko ci kaw suuf ñetti mbir bu njëkk ba mooy mu nekk xalifa laa fil ardi inni jaa'ilun fil ardi xalifa loolu mooy li war mooy bi njëkk kon masuuliya boobu ki représenté yàlla ci kaw suuf kooku war naa xam li mu doon mooy lan waaye ndax xam nañ ko nag muy benn kon kenn ku nekk dana dellu ci laaj boobu ci boppam ñaareel ba mooy wa ma xalaqtu jinne wal ins illa li yabudun ñaareel ba mooy yàlla bi mu bindee doomu aadama ak jinne menn mbir rek la muy jaamu ko jaamu ko bañ ko boole dara loolu mooy ñaareel ba ñetteel ba nag mooy suuf si muy àdduna bi ko yàlla bindee dafa namm mu dundu ak li ci nekk njëriñ mu def ko ngir doomu aadama huwa ansaakum fi min al ardi wastaamarakum fiiha kon ñetti éléments yi nan xool bu ñëwee ci maam Cheikh Anta borom gaawaan nan la ko dundee ak nan la ko réaliser ndax moom xamoon na ne masuuli la responsable la ci ñett yi ci moom waaye benn bu nekk taxaw na ci taxawaay boo xam ne mën na sëkk mooy xalifa gi mu nekk ci kaw suuf wane na ko jëf na ko ba lépp mat na sëkk waaye jaam bi mu nekk bu ñëwoon tey ci buntu ibaada maam Seex Anta ni mu doon jaamoo yàlla te ñu bari umpule ko defe na ne alaaja rek waaye buñ ci ñëwoon tey ji ñu bari danañ yéemu ci maam Seex ci taxawaay bi mu taxawoon ci jaamu yàlla xëy na thème bi loolu tax ko jóg waaye ku ci duggoon danga xam ne maam Cheikh Anta bokkut ak kenn ci wàllu jaamu yàlla ca xam-xamam ba ca ragal yàllam ga ca njàmbaar ga euh, buñ ci dikkoon dangeen xam ne kii ku mat a jàngat la ci jamono waaye ñu bari dañ koo umpule xamuñu kan mooy maam Cheikh Anta ba ca des mooy dundal suuf mbokk yi maam Cheikh Anta ni mu dundale suuf gisuñu kenn ku ko dundale suuf ndax lépp loo xam ne war na doomu aadama ci suuf maam Cheikh Anta def na ko taxaw na ko ba mën sëkk nag danañ si ñëw ci kanam incha allah bu ñu ko waxtu mayee kon mbokk yi li ma waxoon al waxtu huwa al lu mat a bàyyi xel la sufyaan ki dina wax naan al muridu ibnu waxtihi ab murid mooy doom waxtoom loolu mooy lan mooy wenn waxtu wërta dem te defoo ci dara mooy danga ngaa war a taxaw say waxtu bi di ko sàmm ci guddi yeeg ci bëccëg yi te jëmm jii de buñ ci ñëwee moom xaman na ko ba def na la ko war ndax suñ borom bi mu ñu sàkkee kenn ku nekk dafa am ajal ab dig dig boobu nag ci ay waxtu rek la ko seddale nag waxtu yooyu buñ ko xoolee mooy dem ba dikk ay at at yooyu nag mooy dem ba dikk digg bi nga war a dundu te kenn xamul kenn ku nekk at ya nga war a dund wa li kulli ajal fa sa ja ajaluhum la yastaxiruna saata wala yastaxdimun ca sootul araf aaya 34 kon kenn ku nekk am na dig am na app ndax xam nañ loola nag te bu ñëwee boo fi defee li nga war def da nga dem soo fi defut li nga war def da nga dem kon mbokk yi loolu war naa tax kenn ku ne xam lan mooy waxtu bunti ñëwee ci maam Cheikh Anta nan la ko dundalee euh, doomu aada yi nag li cëpp dañuy bàyyi waxtu wi muy dem te xamuñoo ne waxtu yooyu day bu dem yaa ngi ci gën jege sa bàmmeel kullu lahzatin tamur minna wa alayna fa nahnu nasir ila xuburina li ajalin muqaddara ñoo ngi dox jëm ci suñu bàmmeel te bis bu jàll wala waxtu jàll rek xamal na sa bàmmeel jege si na dox nga benn mètre te ñu bari nag loolu ump na leen mu doon dund goo xam ne dañ koo limité ci ay waxtu ay waxtu lañ ko def kon mbokk yi loolu baax na te ñu néew dañuy sànq seen waxtu ñu baree baree ba dañuy sànq seen waxtu te suñ borom day dafa xamoon waxtu fonk lool xam ngeen ne suñ borom lu muy dem ba cay giñ mbokk yi xam ngeen ne loolu rey na lool lu mat a xam la ndax jarul war muy giñ waaye bu demee ba mu ko jare muy giñ war ngeene xam ne loolu dafa bëgg nit ñi bàyyi xel loolu yi muy tax muy di bi zikrillahil waxtu wa zaman ala sabil imtinaan ndax waxtu yooyu ay xéwal la yoo xam ne suñ borom bu demee ba ciy wax ba ciy giñ war nañoo xam ne loola mbokk yi luñ mat a bàyyi xel la ndax suñ boroom bi muy ginnaan wal asri inna l insaana la fi xusri jooju wal asri jooju boroom xam-xam yi ñenn ñi nee nañ jamono la ñenn ñi na waxtu takkusaan la waaye ala kulli xaal lu ci mën a xew rek am na lu tax mu suñu borom ci giñ di wax na day giñ ne ne ci waxtu takkusaan wala ci jamono nit day man na nit ñi perte nañu lu dul nag ñi nga xam ne danañ jëf lu baax képp gëm nañ yàlla te ju baax ñooñu rek ñooy mucc ba lëgee kon kenn ku nekk war ngaa xool ne bu suñ demee bu nee bay giñ ci lool rek war na ñoo xam ne kon li ëpp ci nit ñi sànq nañ seeni waxtu waaye yemu giñ na ci suba giñ na ci yor-yor giñ na ci tàkkusaan giñ na ci timis guddi ak bëccëg wa duha wal layli wal fajri wala yàlla asri wa subhi wan naheer mbokk yi lii ay jamono la te ñi bari dañoo jàpp rek suñ borom dafa wax na mu dem fonk gi suñ borom fonk waxtu tax na mu lépp lu am ci waxtu la koy def Euh, xam nga ne waxtu julli juróomi julli la suñ borom bu fenkul waxtu day wax ne yow jàmm bi jullil ma juróomi waxtu ci bés bi du ko wutal heure du ko wutal heure day wax ne rek jullil su ko fee kenn ku nekk yow yaay xool foo ko bëggee da nga julli ko waaye déedéet loolo suñ borom mi ngi jàngal ci ne waxtu dafa am solo ci doomu adama mu wutal ko benn bu nekk waxtu woo xam ne ci lañ koy julli ana salaata kaanal ala mu'miniina kitaaban maw xuuta jooju kon ay waxtu la ay heure yu ñu limité yoo xam ne ci la war a jullee kon loolu mën nañ ci bàyyi xel waaw koor gi lu tax mu wutal ko weer woo xam ne ci lañ koy def bëgg laa xamal ne kon ndekete weer wu nekk yow am nga lu la ca war loo ci war def taxawaay boo xam ne format su ko neexoon dana woor leen rek kon sama mbokki njóbin yi ñu def mooy dañuy bàyyi ba weer ba sedd bi ñëw ñu woor ca ba weer wi ba bis yi gàtt waaye déedéet moom mooy seet weer wi xam ne ci la koy defee ñu def ko ci kon loolu mi ngi lay fàttaloo xel yow jàmm bi nga war koo def bu dee ci at mi xoolal at mu jot mu ne la demal makka kenn ku ko man te waaye dafa am weer wuñ koy defee su ko neexoon dana la fexeel aj màkka rek yow waaye bàyyi loo xel jàmm bi mu bañ a bàyyi sànku benn waxtu wala wenn weer wala ci at yi lenn nekk nga organiser ko lool suñ boroom bind bëgg xam ko waaye nag ñu baree bari xamuñu loolu waaye maam Cheikh Anta buñ ci ñëwee dañuy wax ni mu koy dundee moo tax rahimullah alxasan albasri dafa waxoon ne ibnu aadama innama anta ayaamun fa in zahabal yawma zahabat baaduk ab suufiyanke la bu yéemee da ngeen ko dégg ko doyen war la daana wax na yow doomu aadama na xam ne yow day ay fan nga ay fan yu ñu dajal rek nga sa soo xamee ne benn fan jóge na cew rek xamal na lenn ci sëg dund dem na lenn ci sëg dund dem na ñooñu xamoon nañ ko muy waxaadama tey ibnu aadama innama anta zaman fa in zahabat sanete aw jus on min saaniya innama zahabat baad ba tey jamono yi jamono yi moom it bu fekkee fexe nga jamono ju dem li naan été wala cooroon wala nawet wala noor yooy bu ci dem xamal ne dem na tudd del siwaat boo ci deful la nga war a def moom du dem du taxaw ndax waxtu du taxaw mbokk yi dafay dem te waxtu du neen waxtu du neen boo ci defee dana dem yóbbaale la boo ci defut dana dem yóbbaale la kon loolu lu mat a xam la al waxtu wa zaman ya ibnu adam laa yarifu qimatahuma illa man jaa saat al mawida wa alima fi ma waxtu wa zaman waxtu ak jamono li ëpp ci doomu armi xamuñu ko kan moo ko xam xiimam mooy ku dem ba bis penc kooki mooy xam dëgg-dëgg lan mooy waxtu kon képp koo xam ne def na ci bàmmeel kookee day dana xam ne waxtu li muy jariñ mbokk yi foofee la koy doxa waaye day fekk nag rëccu weesu na te mënut see dab dabatal ba tax na kon suñ borom wax na nañu lépp lu ngeen ma laaj man yàlla defal naa leen ko waaye ndax li ñu yàlla sant ndax ñu ngi koy def nag déedéet kon xéwal gi ñu jox waxtu yi ay xéwal la mbokk yi dañ ko war a dund ci ni ko suñ borom bëggee wa ataakum min kulli ma saaltumuhu wa in taadu ni'matallahi laa tuxsuha inna insaana la zalumun kafaar lépp lu ngeen laaj suñ borom jox na leen ko ba mu doy sëkk waaye nag xéwal yooyu day ñëw takk ñaata la de ni mu waaye li ëpp ci nit ñi nag ay tooñkat lañ ay weddikat lañ yàlla buñ bokk ci ñooño moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne ni'mataani maxbuunun maa kasir na annaasi as-siha wal fara yonent dana wax ne ñaari xéwal yi ngi nii yu mag yoo xam ne li ëpp ci nit ñi day xamuñu ñaari xéwal yi muy ak wér aku féex mu doon lu am solo ñu bari bu leen ko yàlla joxe xamuñu ko duñ ko mën a jëfandikoo ndax wayka ba dafa waxoon ne adduna ñetti fan rek la al ams asnaahu walan yaut al yawmu naisuhu walan yaduum al gada la nadri ayna sa nakunu daa wax ne démb dem na te du dellusiwaat boo ci jëfee dem na boo ci jëful defu na bu dee lu baax a dem na bu dee safaan ba dem na du dellusiwaat nag loolu mooy benn bi ñaareel ba mooy tey tey yaa ngi koy dund waaye nag saxut de dafay dem boo ci profité wul ci waxtu yi jëf ci li ci war a jëf waxtu yi dafay dem moom du tee du taxaw waaw ndax jëf nga ci bis bi yow li la ci war ak li ci warut kon loolu ab laaj la kenn ku ne war na ca benn beneen ba mooy suba xamuñu ko fan la ñuy jëm ndax da nga fekke suba kan moo mën a wax ne suba lan lay lan lay dana ko fekkee ak ndax dana wér ak déet kon mu ne kon suba sa yoon nekku ca démb wéy na tey rek la moom la Cheikh Moul Fadel daan ko naan démb wéy na suba ñëwagul tey rek la kon adduna bépp tey la kon am murit saa su xëyee bis boobee la jàpp na mooy bisam suñu borom nag ñett yi du ko boole lu néew la ñaar ndax xéwal yi li muy ak wér ak alal akuk féex néew na mu daje ci ñëpp ci kenn nit borom xam-xam yi wax nañ li ëpp nit ki mën naa am ak wér waaye du am ak féex maanaam day am ay problème yoo xam ne amul genn yaatu waaye am na wér lan mooy yitteem su boobaa mooy wéram googu adduna rek la ci dajale adduna rek lay kër kër yi mooy lépp ci moodu yi mooy seen lépp mooy liggéey la am xaalis ngir dellu mën a toog ak mooy seen yitte kër kër guddeeg bëccëg rek loolo mooy ki yàlla jox ak wér ci lay defee loola keneen ki ci des mooy ki yàlla jox alal waaye na jox ko ak wér nee na alalam jooju du ci mën a sant yàlla ndax du tal dara lu dul ak wér lay tal am na alal waaye amatul wér moom nu mu def ba wér rek lay jël alalam jëpp mën na ko dépenser ci mu wér kon ndax alal joojee ndax dana ko jariñ ci dara kon xéewal la ko yàlla jox waaye jariñoowu ko moom kon loolu bari na ñu wax nag ñaar ñii nag moom néew na ci ko mi daje mooy koo xam ne yàlla jox na ko ak wér jox ko ak kooku nag mooy li gën a néew ci jaam yi te mooy xéewal gi xam ne nee na ñiñ ko jox ñooñu seen yitte lan la mooy ittey àdduna rek la waaye du yittey xale alaxira ku yàlla jox wér jox la alal jox la féex li ci ëpp ci mpo ak ci àdduna ci nga koy jëmee lépp ci nit ñi nan ci jox exemplaire xool leen lu mel ne footballkat yi wala musiciens yi yàlla jox na leen wér jox leen alal jox leen féex waaye ci lan lañ koy dépassé ci lan lañ jëm mooy ci po ci lañ ko jëmee kon mbokk yi loolu amul njariñ maanaam wërs xéwal la gu la yàlla jox waaye du la amal njariñ ca delluwaay ba kon ñu ne lépp ci nit ñi buñ amee loolu duñ ko loolu sëriñ tubaa nag xaman xiima xam waxtu xam valeur muy wax ne li nga xam ne moom ñi faatu liñ gën a yittewoo mooy leen mooy dellusiwaat ci àdduna jëf benn saa ngir buñ demee mu jañ leen mu ne ey yow murit bi yow mi dund te da nga faatu de waaye faatoo ko kon kay waaye buural sëg dund li ci des nga jëmee ko ci li nga xam ne mooy aw yiw la mu amal la njariñ fa nga jëm daan na nga tënk li nga xam ne mooy sa dund say noyyi balaa balaa jeex ndax sa sa cëri da nga ko tënk nekk ci lu neex yàlla ndax genn noogoo noyyi waxul saade moom waxul waxtu benn nooy la wax goo noyyi euh, wurus la woo xam ne mën nga caa jënd koom mu baree baree baree bari kon waaye murit fexeel nee na bul sànk loolu ba tax na kon Sëriñ Tuubaa foofu la ñu dénk kon Omar Abdou Omar Abdou Aziz dafa waxoon ne yow doomu aadama bi nanga xam ne bés yi mi ngi jëf ci yow waxtu yi ñu ngi jëf ci yow fexeel koo sëf mu dem ndax soo ko jëfut defoo ci dara dana dem kon nag jëm cee def loolu la ñu waxoon kon kon ñu dikk ci maam Cheikh Anta nan la dunde loola dañuy tënk rek ndax waxtu yi dafa jege yonent dafa waxoon ne doomu aadama yowmal xiyaam ñetti laaj yi danañ ko laaj balaa siqub jéego ñetti laaj yooyu nan xool ba xam jëmm ji nan la ca taxe woon an umrihi fii ma ak dundam ci lan la ko jeexal ci lan la ko jeexal wa an sababihi fii ma ak ndawam gi la yàlla jox da ngay màggat ci loo ko rappelé ci loo ko def ba wa an amalihi ma sa amal fiihi jëf ji nga doon jëf jan jëf la ak ci loo yef waaye wa an maalihi min ayna iktisabu wa fii ma anfaahu alal la yàlla jox foo ko def ak noo ko fàggoo mbokk yi bu ñëwee ci maam Cheikh Anta ci li ma doon wax ngir nan la ko dunde moom moom bi mu ñëwee dafa xam na jaamu yàlla la dundam gépp mu jébal ko suñu borom subhanahu wa taala moom la mu a def mooy bi mu ñëwee xam na ne sëñ Touba mooy xawsu bi waaye dafa am tawfiqil ilahiya mooy bi muy xam sëñ Touba di bëgg sëñ Touba booba sëñ Touba daawuñu ko wooye sëñ Touba Mourou Mbacke lañ ko daan wooye booba dara feeñugul ci moom ci zahir waaye suñ borom dafa ko kasfu dafa ko tawxi dafal ko dafa ko tawfiix ju yaatu mu teel a dund sëriñ jël dundam googi jébbal ko sëriñ tubaa ndax sëriñ tubaa suñu borom la fi nekkaloon mu topp ko bëgg ko sopp ko wóolu ko boolewu ko dara nga xam ne moom ak ak ndawam wa an umri fii ma afnaahu jooju da koo jeexal ci sëriñ moom moom tey jii kenn ku ne xam na ne ak dundam ci seexu nal xadim ci la ko jeexale moom mam Cheikh ndax bi mu ñëwee daa wax ne mënumaa nekk fa sama gi nekkut ba li ëpp bi ko sëñ daam jàngale ba mokkal alxuraan ñu jàngal ko mi ngi jàng ci Maam Moor Jaara ak Serigne Touba ak waajuram ñoom ñoo ko doon jàngal xam-xam ba mu peeg li weetu xeeti xam-xam yi ñu bari dañ jàpp na jàngut ah kay maam Cheikh ku jàngale ba mokkal alxuraan waaye am xam-xam waaye nag doon ko jëfe nag waaye sëñ Touba la jëloon muy wasilam mu jël dundam yépp jooyee ko ci moom nga xam ne la yonte waxal i'mal li dunya ka annaka ka annaka tamutu ghadan noonu la jëfandikoo maanaam dafa jël jaamu yàlla gépp mu jébbal ko Serigne Touba ànd ak di jaamu yàlla moom maam Cheikh Anta tu dafa jot ñu noddu te wéyaat a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim bismillahi rahmanir rahim mbokk xam naa may ñu tuuti rek ñu tënk rek comme dañ leen xamal waxtu ak njariñu waxtu léegi nag borom bis bi nga xam ne moo ñu dajalee dana laaj ñu xool ba moom nan la dundee waxtu loolu dana baax lool ndax nit ki soo ko bëggee da nga koy roy ca fa mu jaaroon ndax dañuy wax ne ak bëgg dafa am solo te ñu gis ne njabootu sëñ Tuubaa yi li tax ñu jariñ si ñoom mooy ñu xool seen doxin waaye mën nañoo wax ay xar baaxam mën nañoo wax ay kiiwaan waaye ndax danañu jariñ ndax loola danañu jariñ mbokk yi déedéet jëf mooy jariñ kon dafay laaj saa suñu dajatee ci ci màggal yi li ci solo mooy ñuy waxtaane jëmm jooju te gis nañ ne toujours dañ koy gàttal te dañoo jàpp ne buñ wootee nit jëmmu ab bis dana laaj ñu jàngat kooku mooy kan ba nga xam ne ku bu ëllëgee doo waru da nga xam ne kii fii la jaaroon fii tegoon tànkam mbokk yi loolu baax naa xam loolu ndax moom wàcc na kat te bu ñëwee ci leetar bi mu doon dénkaane ci wàllu jaamu yàlla dana leer nañ kon loolu baax na ñu xam ñi ñu topp ñooy lan ak nan leen toppe maam si bi nga xamee ne topp na Serigne Touba mooy ki nga xam ne moom la Serigne Touba jël mbooloo tofal ko jox leen mu yilif leen li ma ca tàmbali ba doomu aadama xalifa ci kaw suuf bi ko Serigne Touba jox mbooloo. mi ngi am fukki at juróom-ñett wala gën ngaa bari fukki at juróom-ñeent ñu jël juróom-ñeent fukki nit jébbal ko ko jox ko ko mbokk yi xool ba masuliya mooy koo xam ne da ngay doog a taklif mu kallaf ngay doog a doon ñu jël ay nit jox la na la defar leen mbokk yi kooku ndax bu fekkoon matul woon ni war doon ndax xamu li war a xam ndax kooku dana ko man kon tont mooy déet waaye fekk na booba Serigne Touba def na ci moom li mu war def. waaye mu am ak mat goo xam ne moom am Cheikh jël ay responsabilité ba mbooleem ñi nga xam ne ñoo ko toppoon mu yar leen ci diine defar seeni i jikko tàggat leen ci liggéey yàlla ci liggéey ci liggéey suñu borom mooy da leen tàggat ci jaamu yàlla defar seeni jikko tàggat leen ci liggéey danañ ci ñëw ci kanam bu ñëwee ci kenn rek danañ ko ci jukki muy sëriñ alaaji Mun Njaay Jóob dooy na sëkk buñ ci ëndee waaye bi mu taxawee ci taxawaay boobu euh, nan la def mooy ni mu mooy ci jamonoom xam na ne jamono di dem buñ la joxe ay nit war nga leen tàggat ba nga xam ne ku dem dangay ngay mën a defar ay nit mu samp daara jël ay nit yoo xam ne dañuy jàngal alxuraan ñuy jàngale alxuraanu karim jël ay nit ñuy jàngale xam-xam ku nu jàngal ba nga man ñu defar la jàngal xam-xam waaye ñu yar la jàngal la liggéey nii la maam Seex defee nga xam ne ku jóge foofu rek da ngay nekk insaan kaamil nga xam ne yow da mat sëkk mën a defar ka defaraat loolu mooy benn liggéey bi mu daan def waaye bi mu jógee ci wàllu tarbiya boobu ñu xoolee ab liggéey muntu ñàkk liggéey muntu ñàkk ndax suñu tubaab dafa xone wa talabul xalaali fardun yantami li kulli muslimin bi xayri waxam sàkk lu leew dafa munta ñàkk ci ab julit ndax jaamu yàlla munta am ci lu dul ne da ngay lekk lu leew maam Seex Anta kas bul xalaal euh, ñu bari dañuy jàpp ne maam Seex Anta euh, dafa nekkoon koo xam ne dañ ko bàddal ci wàllu alal déedéet daf koo liggéey mooy dafa xamoon waxtu yi mi liggéeyee mooy li ma mooy xam waxtu lu solo lu baax la mbokk yi maam Seex Anta bu waxtu mbay ñëwee dafay jël li nga xam ne lépp laaju ci wàllu mbay maam Seex Anta def ko di bay jël ay matuwaayam lépp lu laaj ba def ko ci ay matuwaay wut jiwu doy jiwu baax wut ay machine wut ñu koy liggéey wut engrais ba doy sëkk ànd ak ñoom teg leen ci yoon woo xam ne buñ fa jógee macha allah meññee mi am solo loolu moo ko may leen muy benn waaye xam nga ne nawet dafa gàtt bu jógee ci loolu ma nga ca mbayum noor ma mooy lépp loo xam ne mbayum noor la maam Seex ma nga ca di ko def nam mu ko war defee nga xam ne ni mu ci meloon jéggi woon na dayoo fànn yëpp la daan bay nag moom maam Seex Anta ba li mu am mën nañu wax ne la ko may mooy loolu moo ko may loolu mooy ci wàllu mbay mi kon temps bi nga xam ne mooy jamono nawet daaw ko bàyyi rek muy dem déedéet da daan fàggu ay ay nit ñu koy liggéeyal ci waxtu li nga xam ne mooy waxtu nawet kon xamal na la mooy waxtu woowu bu ñëwee ci noor ñu bari bu ñu bayee ba noppi dañuy daal tëdd def luñ dara di lekkaat li ñu yoroon waaye maam Cheikh Anta déedéet daaw lekk li mu yor moom day dem di bay mbayum noor waaye bu ci jógee ni muy def mooy dafay dem ci wàllu commerce ndax jamono jëpp mënoo koo bay jamono jëpp mënoo koo liggéey waaye ni muy def mooy dafa xool jamono yi nga xam ne moom it dafa laaj am mbay dafa laaj ab commerce mu def commerce waaye bi muy commerce mooy daf doon jàngal jullit yi ab jullit nan la war a bayee nan la war a sakkoo alal bi mu ñëwee di bay di di jaay xam ngeen Touba Toul xam ngeen ko histoire bi bi mu ñëwee dafay def loo xam ne yoonu murit ba léegi mënuñoo agsi foofu fi mu agsi ci moom ndax booba euh, fi ñu daan jëlee marchandise dafa sori woon cees wala Dakar wala ci yeneen lañ daan jëlee tuubaatul ay dëkk yu bari wër ko maam Cheikh Anta bi ñëwee dafa wax ne nañ def ay bitik jël ay nit na leen ñi bëgg liggéey mu jox leen xaalis na leen léegi ni ngeen def mooy defal leen ay bitik yu baax yoo xam ne dana mën def ay marchandise mu ne li ma bëgg na wut ay nit ñoo xam ne dañuy wuute compétence ci commerce kenn ku nekk du bokk sa morom capacité bi am ci wàllu njaay mu financé leen. ñu dem fi nga xam ne mooy Thiès ak Ndakaaru wut ay marchandises yoo xam ne benn bokku te moroomam nga xam ne bu ñëwee dëkk yi nga xam ne ñoom ñoo wër tubaatul dëkk àll yooyu kenn dutu am problème mu marchandise bu ñëwee ci luuma yi foofu fi la ñuy jënd li ñu war a jënd lépp mu def ay nit ñoo xam ne kii daa sarsali kii sarsalee kii sarsalee kenn bokku ci moroom morom ja la mu def mbokk yi xooleen wow doxalin ni mu mel nga xam ne ku ñëw euh, commerçant yu ndaw yi ñoom ci bitig yooyu nga xam ne maam Cheikh Anta da koo financé woon ci li ñuy jënd ñoom daal delluwaat seeni dëkk di fa di commerce ba bis bi siwaat waaye xam ngeen ne ab ab sanc du neex am na ñoo xam ne bu ñëwee bu ñu jaayee duñ jaral waaye maam Cheikh Anta li muy def mooy ni muy def mooy de ba ñu découragé maam Cheikh Anta dafay wooy ñoo ñi nga xam ne dañoo lambale wala xëy na amaguñ capacité bi ngir ñu bañ ñu découragé xam ne ab jullit dafay liggéey mu woo ñëw mu jëndi marchandise su ko jëndee ba noppi xam ne moom soxla ko mu jëlaat ko mayaat leen ko ngir ñu bañ a décourager delluwaat seeni kër mbokk yi kooku jamono laaj nañu ñu waxtaane ko ndax kan mooy defete loolu mbokk yi léegi commerçant yi na la ñuy def mooy prix bi nu mu gën a cher moo ci gën waaye yemul ci lool de ci jamono yi nga xam ne yenn xeeti marché dafay manqué ba nga xam ne dañu yëkk dañuy yëkkati prix bi buñ ko yëkkatee maam saxanta nan lay def day ñëw xool prix ba gën a suufee mu def ko samp fa ngir mu régulariser li nga xam ne mooy marchandise mi tey masalan bu ne kilo ceeb fukki dërëm lay jar cher na mu ñëw na leen léegi juróom lay jar wala juróom-ñaar su ko fee ñëpp daw wuti ko commerçant yi dañuy mujj ñoom it dañuy wàcce seen prix daw fekk ji ko ndax bu ñu ko def jaral bu ñu ba ñëpp maase ci benn prix mu bàyyi leen ci dem ci leneen mbokk yi kooku xamoon na jamono mu wuuteeg léegi jamono ji mooy bu dara manqué commerçant yi dañuy profité yëkkati prix bi ba xam ne day cher cher boo xam ne ñi amul kattan duñ ci mën dem mbokk yi kooku taxawaayam mat nay fàttaliku mat nay jàng lu dul ay xar baax ba ca tege mooy bu gerte gi ñoree xam nga wax naa la jamono nawet dañuy bay waaye su bayee ba noppi du bay rek tubaab bi ñëw di jënde nu ko neex tubaab bi day ñëw ne day jaay day jënde fukki dërëm maam Cheikh Anta lu muy def bu ñëwee danaan fukk ñaar lay jënde man xam nga kiy jaayee kiy jënde fukk fukk ñaar duñ mën a bokk su ko fee commerçant yëpp daw jëm ci maam Cheikh ay nit lay financé ñu taxaw ci àll bi di jëndee loolu nga xam mooy prix fukk ak ñaar ngir ñu mën a su paree nu muy def mooy du ko jéem a seeralaat da koy denc bay ba jamono bi nga xam ne mooy jamono nawet jikkaat na baykat yi soxla nañ ko sonn nañ mu wàcceewaat bi joxaat leen ko te tax mbokk yi kooku moo liggéeyal Sénégal kooku moo dundal Sénégal kooku moo dundal yoonu murit waaye yemu ca xam nañ ne ñëpp ñu bay ci jamono yooyu dafay jënd ay kër yoo xam ne lan la koy doyee kër yi du alal rek de day xam ne booba murit gi nii ñu mel ci bareegul ci taax yi ci àll bi dëkk mu dem ci dëkk taax yi di fa jënd ay kër su fa jëndee kër ñu daan lan la koy dee mu defar ko ba mu baax wut ay néeg bàyyi fa ngir ne murit yi nga xam ne dañu dëkk ci dëkk àll yi bëgg a liggéey si taax da bu ñëwee dal foofee te du leen fay ko dara bu ca yemoon bu baax waaye du yem ca lool de day wut dépasse boo xam ne da koy saxal ca kër googa daan na léegi képp koo xam ne ñëw na rek boom mu ne dépasse bi doy ci kër gi mbokk yi ana ko mel noonu kuy defa taxawaay taxawaay mel noonu wut dépasse wut kër fay yi koo dara di nga def ngir jëm yàlla ngir jëm Sëñ Tuubaa kooku xamoon na jamono ni mu daan jàppalee doomu aadama yi ak ni mu daan defee ñooñu noonu la maam Cheikh Anta doon dunde non doon def ñu xoolee import export mën naa ne wax ne moom moo ko njëkk a def bu ñu seetee moom jëmm jooju euh, la ko defee mooy maam Cheikh xam nga ñenn ñi sax dañu wax naan bi muy yóbbu Makka juróom-benn fukk fukki nit la yóbbu Makka moom maam Cheikh lan moo war a juróom-ñetti fukk mooy bi nga xamee ne woo na ñi muy yóbbu dafa woo ku ñu wax alaaji mbaalo sekk na ko dama bëgg nga xoolama commerçant yi nga xam ne ñoo nekk fii te te nga wóolu leen te doylu leen ñu ñëw moo financé leen ngir ñu bu ñu demee Makka bu ñu aje ba noppi ñu jënd marchandise moo xam ne dañ koy indi Sénégal marchandise mi nga xam ne Sénégal amuñu ko te nit ñi mënuñoo dem Makka su boobaa ñu mën a am marchandise su Makkatal Mukarram xoolal ma ni muy taxawoo xeet wi xoolal ni muy jëfandikoo ci ci ci ci ci dimbali leen kooka wutal ko ay nit nga xam ne bi ñu dajalee euh, bato bi ak ñiy dem mat na juróom-ñetti fukk deuxième classe mi ngi ko dagge billet bi trois mille quatre cent première classe mi ngi ko dagge quatre mille neuf cent mbokk yi calculer ma loolu ci quatre-vingts personnes ñaata la mu def ko ngir jëmbi sëñ Tuubaa képp jox leen xaalis jox leen ab yóbbu bu doy na leen nañ dem yor seen lépp ngir lan sëñ Tuubaa bëgg-bëggam moo doon mu aji Màkka te mënu ko mu jël ay bokkam ay doomam ay taalibeem jël leen yóbbu leen financé leen ci ñu dem Màkka loola duñ ci diggu ndax beneen tem la loolu waaye li ma bëgg wax rek mooy li ma yitteel mooy kii nga xam ne mooy alaaji mbaalo sekk mi mu jël na ko xoolal ma ci commerçant yi ñi nga xam ñu lañ ñu am capacité te nga wóolu leen te duñu wor nga andil ma leen ma jox leen xaalis ñu jënd ñoo ñu la jël yóbbu leen makkatal mu karam bañ demee ñu jënd ay marchandise yoo xam ne yu wuute la andi ko Sénégal ba mu doy sëkk nga xam ne képp koo xam ne bëggati nga marchandise moo xam ne makkat am ki nga xam ne mooy Sidi Mokhtar borom gaawaan andi na ko te jubluwu ci dara ngir dimbali jaam yi ngir xam temps bi mu ni mu seere xam waxtu ni mu seere ndax jamono yi lañ ko mën a amee waaye bu dul loolu nga dagg billet ba nga dem Makka wut sa marché du yom mbokk yi nga xam ne xereñ gi mu amoon ci wàllu waxtu ak jamono dafa yéeme woon nga xam ne diggante aj ba ajaat incha allah su boobaa liy marchandise dutu fi tumuranke te dañ ko am kon loolu benn taxawaay waaye bi ma ci gën a yéem mooy ni mu mooy bi mu demee Makka dafa xam ne jamono dafay dox dèjà profito def ci loo xam ne lu yéeme la mbokk yi ndax bi mu demee dafa jënd li nga xam ne mooy mbalaanu Seydina Hamza moom la jënd waaw ndaxte tey bu doon ji ndax danañ ko mën a ti déedéet waaye dafa xam da doon moom li ma la waxoon la xam waxtu la ak jamono lu ñëw rek dana ca taxaw taxaw ma sëkk moom Sidi Muxtaar kon kooku ku mat a jàngat la ndax jamono ji yaakaar naa ne lu jógee ca Makkatal mu karam kenn mënu ko jënd fi mu toll ndax duñ ko bàyyi waaye xamoon na ne valeur la Sidi Muxtaar daal di jënd li xam ne mooy pavillon bi nga xam ne mooy mbalaanu Seydina Hamza moom la jënd keroog bi mu wàccee liggéey moom lañ ko tiimale moom jëmu joju waaye bu ko jënd woon ndax dana ko mën a wati yemu ca ay lam yoo xam ne soxna Fatima doomu yonte bi sallallahu alayhi wasallam moo ko amee woon borom gaawoon bi mu Makka gis ne lu baax ci kan la jaadu ci njabootu Sëriñ Tuubaa mu jënd ko ñëw jox ko ki nga xam ne mooy soxna Maymunatu moom Cheikhul Khadim andil ko ko jox ko ko muy valeur waaye yemu ca nam def mooy barab bi tiim yonente pavillon bi la jënd la jënd taba booba dañ doon dagg dëkk bu ñëw ñu dagg am morso jaay la waaye bi ñëwee dafa laaj ñaata la ñu wax ko ko mujj likkiti xaalis jënd ko indi ko Sëñ Tuubaa boo demee ci barab Sëñ Tuubaa moo ko tiim ci biir mbokk yi kooku liggéeyal na senegal waaye liggéeyal na Sëriñ Tuubaa waaye yemu ca maqaama Ibrahim ba demee da koo jënd andi ko kan la ko jox maam Thierno Ibra borom Daaru Moxti boo demee fële moom la jox maqaamal Ibrahim mbokk yi xoolal ma kii taxawaayam ak ay xalaatam ak ni mu doon profité jamono waaw ndax jamono ji buñ ko doon jaay tey ku ko bëggoon ndax da ko jënd déedéet mun ta nekk nga xam ne loolu li ma jubal wax rek mooy jëmm la joo xam ne ñun ñëpp war nañ koy jàngat bañ a xool naan maam Cheikh Anta borom dërëm ak ngërëm rek la déedéet dafa liggéeyal réew mi liggéey boo xam ne sama mbokk mi léegi sañ dong wax na ko léegi su jamono demee ba dund manqué da jënd ay tonni ceeb di ko finance ci réew mi cent vingt cinq mille yooyu wala douze mille tonnes yooyu mu jëndoon fan la ko jox mooy njaboot gi la ko jox ñoo ñoo nag la ko jox muy muy taalibe yi ak mu ak murid yi yamul ci woon kenn nag nga xam ne jamono bu laajee rek lu mu laaj mu def ko bu ñëwee ci ñem yar kii nga xam ne mooy sëñ mun njaay Diop kenn ku ne xam ne ne sëñ Tuubaa moo leen boole ñu ñaar mu defar ko nan ñëw moom ci defaruñu borom gaawaan nan ni meloon muy jëmm joo xam ne xel mi ak yéeme gi foo ko takk weesu na ko bi mu nekkee njaareem ci waxtu ni ci daan dundee nañ xool bu ma ko waxee ba ndax loolu kenn mën na ko saa su ma saa xëy jógee ci borom gaawaan mu jox ko ndigal mu ñëw ci sëriñ tubaa sëñ tubaa xooloo ko mu xool gan ñi ñaata gan ñoo fi nekk sëñ mun njaay jóob wër kees yi xool gan ñi xool kenn ku nekk leen la wan a yeew mu ñëw sëñ tubaa waxaat ko ko sëñ tubaa na ko demal nga yeewi leen sëñ mun njaay jóob def mooy xool kenn ku nekk lam la war a yeewee mu lijjanti ko jox la yewi la waaye doo ca yem de dafa daal di jógee foofu dem ca prison ya ñun jàppoon ñoo xam ne da ay tooñaangee tax ñu leen ñi nga xam ne amuñuy bokk ñi xam ne ay erreur moo tax ñu jàpp leen say mun jaay jóob taxaw jàppale leen dimbali leen ba ñu génn foofu ñu nekk seen tumuranke googee mu jóge ci de te lépp ci benn bis bi la de bu fa jógaatee fan la jëm day dem ca gaar ba su demee ci gaar ba day taxaw xool ñi nga xam ne dañoo tumuranke xamuñu fu ñu jëm am nañ jafe-jafe sëñ mun njaay jóob taxaw lijjanti leen ba mu jeex mu doog a dellu waaye mbokk yi xoolal ma tey jii tey kenn ku ñëw ci kër sëñ bi bu la wax danaan tey de kër sëñ bi laa yendu nga temps parce que bi yëpp loo fi def kër sëñ bi rek demoon ku demoon prison seeti ko looy wax tey dem prison laa demoon nga xam ne tey jii jamono yi nit ñi ni ñuy sànkee waxtu mooy benn mbir ngay fi rek ci bis bi waaye xoolal ma kii te bokkut ak jaamu yàlla ga nag bokkut ak tey këram xëy na taxawu njabootu muy muy taalibe yi ñëw ci sëñ Tuubaa wëlbati ko dem fee nga xam ne mooy ca prison ya laddanti leen dimbali leen jóge ci dem ci ñi jaaxle xamuñu fu ñu jëm la dellu ci ay jaamu yàllam dellu ci këram mbokk yi ak dund benn la doon dund di ñaari yoon nit ki nag war nay xam ki mu bokk mooy kan mu jéem a jàngat ci moom dundam ngir la koy jariñ ndax moom buñ koy tënk rek ndax xam naa waxtu jot na moom damay wax ne kenn rek buñ ko indee ci ay seede dana doy sëkk lim ko seddeel muy ki nga xam ne moo di sëñ bu sa foofu lay jeexale ndax ñi may xam ne temps bi jeex na sëñ bu Bousso day kenn koo xam ne dafa yéeme woon lool ci taalibe yi waaye bi nga xamee ne mi ngi tagg jëmm ji di wax kan mooy sëñ Sidi Mokhtar Sidi Mokhtar dafa wax na day jëmm la joo xam ne day ñëpp war nañ ko waxtaane ndax jëf jim jëf dafa taxaw taxawaay suñ borom subhanahu wa taala bi muy wax ci xasida goo xam ne mi ko tuddee lisaanul xaq fan yatakallamu fansitu lahu ayyuhal sénégaliyuuna lu bari la ci tënk nag ab leetar la ab kii la boo xam ne ñu bari war nañ ko jàng waaye bi muy wax day wax ne man waxuma yàllaay wax yàllaay wax dafa wax ne summa i'lamu inni ana alladi xalaqtu Cheikh Anta ala ma xalaqtu alayhi min salaamati sudur wala min salaamati sadri wa riq wa riqati alqalbi wa quluwi albaali wa qawaltuhu ma qawaltu wa jabaltuhu ala infaaxi mimma razaqtuhu yaminan wa shimalan laylan wa naharan la yumayis fi zalika sadiqan min aduwin wala xariban min baid li annahu majbulu ala zalika dafa wax ne man yàlla moom dafa taxaw taxawaay yàlla di jot fay jot li wax daane man yàlla man maa bind Seex Anta waaye maa ko bind ci lan nii mel mu nekk koo xam ne ku nitu jàmm la moom Seex Anta wax ne Seex Anta ku nooy ab xol mooy ku rafet ab xol la daal di wax ne Seex Anta ku woyefal amul benn jafe-jafe moom ku woyefal lépp la daa di wane Cheikh Anta nag man nag maa ko tànn ni mu mel defar ko ni mu jikkoom ji nag ma binde ko moy koo xam ne dafay dimbali jàmm yàlla yi wa jabaltahu alal infaaxi mi ma razaqtahu kon maam Cheikh ni meloon da ko mooñaale mu doon koo xam ne dafa do yàllaa ko bind sàkk ko muy dimbali jàmm yàlla daana nag ni mu daan joxee yaminan wa shimalan ndeyjoor bi càmmoñ bi xameewu leen noonu la lay joxe waaye xamul bëccëg ak guddi laylan wa nahaaran suñ mbàkki bu sama wax nee na maam Cheikh nii def nee na nag xàññewu xàmmeewut ab xaritam akum noonam muy lu jafe nee na noonam bu ñëwee li muy sàkku ci moom ak xaritam bu ñëwee nee na ñoom képp ku ñëwul la ngay sàkk mu jafal bu mat sëkk daal di wax ne xàmmeewu leen daal di wax ne kii nag nii la ko yàlla bindee kon jëmm joo xam ne loolu rek doy na sëk ci aw jikkoom ak melokaanam mooy dafay nekkoon di dundal li nga xam ne mooy suuf si daan dimbali doomu aadama yi ci ñaxam waaye si alalam ba nga xam ne mboolem bi mu fi nekkee kenn ku tumuranke amul woon ci wàllu dund te xam nañ ne jamono yooyu dund seeroon na am na jën jëmu ñoo xam ne keroog bi Cheikh Anta jógee ci nga xam ne mooy Ségou nee na maa ngi ko fekk mu yor nee na mi ngi yor benn doñu doñu rakkal ndax boobu dund metti na waaye ne bi ma déggee ñu ne Cheikh Anta ñëw na nee na sama doñu rakkal dama koo sànni daan wax ne bis naka tey kon ceeb laay dundee ndax Cheikh Anta ñëw na kon kooku ñëpp xam nañ ko taxawaay bi defoon ndax boobu ceeb jafe na waaye jamonoom ceeb ak ndawal lañ daan dundee ñi néew doole mu na dimbali ki bëgg commerce mu lay dimbali kon kooku jamono laaj na ñu waxtaane ko kon xam naa ne waxtu wi jot na liñ ci bëgg a wax lépp xaju ci waaye doy na sëkk rek ñu xam ne roykaay la ñu war a xool ay jikkoom xool ay melokaanam bañ a xool rek ne seexanta Anta dañ ko bàddiloon waaye déedéet ab jaamu kot yàlla la woon ku fi nekkaloon julli la waaye xammewul am noon xammewul kenn li fi nekk mooy Sëñ Tuubaa la fi nekk doo liggéey Sëñ Tuubaa wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu amalika mulki ya